donc 37 villages yëpp dajaloo képp ku fi yëngu ci wàllu transformation ak activité yu dajaloo def benn kuréel tudd ko réseau des femmes donc ndimbal bu mu am ci suñ ci la koy jaarale li ñu ko jox. bi mbas mi amee tam dafa génn lu toll 5 millions daal di koy def lépp luy gel ak saabu ak li nga xamante ne moom mooy jàppale jigéen ñi wàllu détergent ci biir kër yi donc yemu ci tey bu defee lii ñu la ko defal. ndax ku ne xam na ne léegi jaay amatul jënd amatul góor ñi dematuñu fenn ñu ngi toog ci biir kër yi. donc tey bu indee lii jàppale ñu ci dund yi nekk na loo xamante ne lii wax dëgg fa yàlla lu ñu rafetlu la di ci kontaan te duñ na euh, gulee duñ na tey la ko ma sa def donc lépp loo xam ne mu ngi jàppale jigéen ñi ci commune bi monsieur le maire mu taxaw ñun ñii rek récemment la ñu jox terrain wu 900 mètres carrés te ko xam na ne foncier groupement euh, jigéen ñi monsieur maire yi joxatuñ leen suuf ba mu nekk problème boo xam ne ñun ñaa ngi koy kaas fu nekk mais moom dafa taxaw daggal ñu suuf jox ñu ko ba pare accompagner ci ay finance ñu ngi xeex ci loolu pour tey ji yàlla jëlee fi mbas mi ndax zéro cas la Kër Moussa amagu fi commune Kër Moussa amagu fi yàlla bu mu fi am donc loolu lépp ci taxawaay bi la ak monsieur le maire jàppale ak tam ñu taxaw ci di rayante di respecter mesure barrières yi raxas suñuy loxo takk suñuy masque bañ di nuyoo di sëqati suñuy conc donc di sensibiliser suñu njaboot ci loolu ak suñu bopp amuñu kañ lay fii geex te xale yaa ngi toll ci examen te bu ñu toogee année blanche bi baaxul ci ñoom dañ pour mën a école bi ñu respecter les mesures xale yi jang parce que depuis Covid 19 bi ñu ngi ci doon def sax suñu loxo wax nañ ko sànq mais nag pour ñu mën a def lu mel il faut que ñu am ay moyens yo xamné ne mën nañ ko ci def ci lolu comme nima ko waxé sank euh, président de la république def ben réaménagement bo xamné permettre nañu euh, euh, commune yi pour que ñu mëna wut ay fonds yo xamné ñu mën ko jappalé askan wi euh, lolu bi mu amé itam.

mënoo koo xaarloo ne ko xaaral suba wala ginnaaw suba moo tax ñu ne nañu devancer état bi pour que aide boobu ñu indi ko jox ko population bi en attendant que ñëw loola bu ñëwee e fekk na déjà nit ñi am nañ ci lu ñu jàpp. parce que deux mois ngi nii xam ngeen ne situation bi ñu nekk dafa xaw a difficile boo seetee dëkk bu mel ne Kër Moussa nga xam ne transport mooy seen seen seen seen principale euh, activité. ak jigéen ñi jaay bi ñuy jaay mënatuñu dem Dakar di jaay mënatuñu dem ci marché yi jaay. transport bi aussi boo duggee ci biir dëkk bi dinga gis ne oto yëpp ñu ngi gaare donc bon ñooñu jaadu na ñu teel leen a wallu en attendant ñu mën a am lu ñu jàpp ba nga xam ne état bi mu ngi ñëw xam nañ ne état bi mu ngi ñëw ak doole mais ñun itam li nga xam ne am nañu ko ñu indi ko population bi mën. def nañu benn opération ak waa service d'hygiène nga xam ne école yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi yëpp muy lycée yi di CM yi ou bien école élémentaire yi ànd nañu fa ak waa service d'hygiène ñu désinfecté ko.

nan la ñu war a mën a def ba nga xam ne ñoom dinañu am ndox nga xam ne cat gi dina mën a yegg fa nga xam ne noonu foofu fa lañ ko bëggee.